que des bas mhm, voilà defe naa ne Karim ku ko xam nii nga ko xamee. Mhm. te Karim sax daf lay jaaxal ne bi tey seen waa kër dañoo noppee noppee noppi noppi noppi ba nga ne ma lii lan la moom dafa noppi moom dafa noppi. <laughs> dafa dafa am lu muy xeer loolu dafay dafay jaaxal nit ñi ci Karim suñ ko gisee. <laughs> Euh. par rapport ak bi nga xamante ne noonu la seen waa kër mel macha allah ñoom tam ñu leen di nuyu bu baax a baax. Mhm. yaakaar naa ni ne waa bopp. fier nañu am doom bu mel ni yow. Mhm. te yaakaar naa ne les bopp waa ni ñu koy waxee dañuy dëgër bopp. <laughs> Karim ñu delluwaat euh, nuyu la. Mhm. comme ni ñuy waxee détention defe naa ne Karim mi ngi koy euh, commencé bëgg miin te ku mhm. wax rek dañ naan bu mu ci dellu si waat mais dañu gis euh, ñiy jot a génn ñëpp dafa am benn. demande boo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy laajte moo di ñi nekkoon en détention ba génn nañ leen utal benn assistance en psychologie ndax yow da ngay partager avis boobu est-ce que réellement soxla nañ ko fi mu toll nii. bon en réalité boo boo seetee euh, dina am ñu ko soxla parce que arrestation yu mujj yi euh, ci presque mille et presque deux mille sax. Euh, mhm. jeunes yoo xam dañu leen arrêté si manifestation yi détenus politiques yi def ci bëri ñoo xamante ni xamuñu kaso xamuñu suñu genre yi sax ay mag lañ yàgg nañ dugg si kaso bi et tout depuis 2011. xam nga tëj nañu xam nga Macky Sall ñëwaat donc ñun am nañ habitude man first may dugg prison. bi may soog a dugg prison dugg euh, rëbës sérieusement bi ma génnee man affaire bi ma nekkee si café affaire xaw na moom perturbé tuuti quoi. Hmm. donc su ma ko su ma xoolee boobu ak man âge bi ma amoon ak ñi ma gis rëbës la fa passé bi may mujjee dugg si prison bi je pense que ñooñu vraiment dinañ soxla psychologue quoi parce que. Euh, nga nekk parce que man wax souvent dama ko wax yàgg naa ko wax dama wax ma ne rëbës du du xam nga dañ ne maison de correction maison de correction rëbës maison de torture la parce que man li ma gis rëbës te lii may wax nii ma sœur boo demee seet samay vidéo y a presque ay dix ans waxoon naa ko quoi mhm. ñun bi ñu arrêté si affaire jeune Colobane yi euh, y a presque 2000 2013 la man wax naa ko quoi bi ma génnee def naa ay émission pas mal d' émission ci plateau yi mais boobu demeewuloon ni peut être xam nga mhm. waxoon naa ni li xew rëbës rëbës a ngi Sénégal a ngi toj li xew rëbës doy na waar mhm. pour nit ñi bàyyi ko xel ci ay arrestation yoo xam ni ay gis te dañu ne du prison wu mineur. du prison mineur yi forbee la ñu war a dem. mais pourquoi des mineurs à Rebeuss gis nañ ko ki mujjee génn il avait 16 ans également. mais ni nekk Rebeuss nit mënu ko comprendre loolu musiba naaru laay la te képp koo xamante ni au fait mosoo def prison boo fa duggee da ngay xam ni fii c'est-à-dire da loolu moom da koy miin rek mais da ngay déjà mm-hmm. accueil bi Rebeuss garde yi koy garder sax ñoom dañuy en fait ñoom ils sont pas stables tellement pression bi nekk Rebeuss yoo xamante ni ñoom ñoom les gardes matuñu cinquante wala bu ñu ko matee te lan moo euh, bi capacité bi nga xam te ne Rebeuss war na ko jël dans les normes. normalement Rebeuss warul jël plus de cent warul jël plus de mille te mille yi sax dafa ëpp. en réalité bi ñuy wax dañu mille et quelques la ah, après mu aménagement mu dem ba huit cent. Mhm. Euh, je crois que depuis lors on a plus aménagé donc. capacité bi c'est huit cent. parce que boo xoolee Sébikotane Sébikotane bi nga xam

noonu la ñuy teglee jëlmaan yi si biir Rebeuss prisonnier donc c' est inimaginable nit mënu ko xel mënu ko natt façon gu torture bu nekk am na fa lu ne am na Rebeuss mënoo ko comprendre dafa doy waar kaso bu doy waar la moo tax c' est normal ko il faut xale yi surtout ay man gis naa fa ay ñoom booy fàllu ay booyu ndaw yu am ay 15 ans 16 ans xam nga ay. c'est-à-dire yoo xamante da ngay xam ne lii vraiment ñii dañuy soxla ku leen assister après bu ñu génnee kaso mhm. donc moom même boo dee mag sax mosoo def kaso soo duggee Rebeuss pour une première fois il faut da ngay soxla vraiment ku la assister quoi mais ñoom yenn explication la ñuy joxe par rapport ak euh, jeunes yi mineurs yi nga xam te ne ñu ngi leen fay indi mhm. te Fort B est tout près ici à a wax bi parce que man bi may dugg prison gis naa fa dof mhm, bien sûr un fou hmm? ñu baal ma ko xam ne xel mi dafa wér wérul quoi. effectivement ñu nekk du sangu. li muy sol day xeeñ ci boobam lay defee li muy def yëpp si yaramam lay demee lépp. oui oui cest man bokk naa kaso euh, nekk ku mel noonu xam nga koo xamante ni c'est-à-dire xam nga man koo xam ne da nga dem ba yegg si yenn niveau mm. ñu tànn la def la juge nga dem ba xam nga qualifié nekk juge juge c'est pas c'est pas si si si intellectuel da ngay mm-hmm. nit quoi parce que. damay wax souvent ma ni euh, tout est écrit sur les visages il suffit tout simplement de savoir lire regard aussi dafay wane regard mhm. absence u regard dof absence u regard loolu loo waye di waye nit boo gisee su fi nekkul da nga koy xam ma ma sa juge quoi mais naka le juge mën a jàkkaarloog dof ko dañ koy gis koo xam ni kii dof la ah man nekk nag dof euh, euh, rëbës mu yàq boppam fi muy nekk des fois ko si nekk nag dof rëbës ñu fa fi mu nekk day du sangu xam nga cest à beneen niveau quoi da ngay dem ba benn instant da nga naan mais lii est-ce que vraiment lii est-ce que Sénégal am na ñoo xam ne ragal nañ yàlla ci li ñuy def parce que juge bu jàkkaarloog dof dañ ko dafa doon ramasse police ñoo doon ramasse bi ñu koy ramasse fekk fekk am ku ñu jàppale jàppale ko yóbbu bi ñu ko yóbbu mu yàgg ci commissariat bi ñu yóbbu ko ñu defeere ko mu nekk ci kaso bi tëj nañ ko un mois deux mois trois mois xaw ma ñu bàyyi ko pour ñu cest euh, directeur u kaso bi moom il faut mu am c'est-à-dire il faut mu am ay euh, euh, ordonnance yoo xam ne juge moo koy autorisé pour mu mën ko jël yóbbu ko euh, si si si dalal xel je sais pas pour ñu mën ko autoriser carrément xool ko xam ni kii de malade xam nga sinon bu defal loolu du man donc il faut mu obligé def loolu procédure yi rek balaa juge bi di ko ordonné loolu balaa ngay jot ci juge bi rek déjà problème la. Mhm. donc loolu yëpp c'est des choses yoo xamante ni man dund naa ko si kaso bi donc man suñuy wax suñuy wax man dama yàgg toog di déplorer rëbës yi fa nekk dama ko yàgg wax gis nga bi xale yi génnee nii ma gis ñoom ñëpp ku nekk di dénoncer di expliquer def nañ ma lii kaso bi am na lii dama noonu reetaan ma ne ñii dañuy soog a dugg si kaso bi mais bu ñu delluwaatee tuuti en arrière rek gis samay vidéo démb yi man je l'avais dit naa ko ci cas bu nekk wax naa fi kaaw Saliou Ndiaye mhm. Saliou Ndiaye benn jeune la boo xamante nii moom dañ ko fekk dañoo dafa ay boy yu naan café ci moom café Touba da doon jaay café Touba Médina moom bi police toppee trace portable yi ñoo di jàpp booy yi fekk booy naan café Touba si moom ñu jàpp ko yóbbaale tëj nañ ko 7 ans xaw ma 10 ans balaa Saliou Ndiaye dafa dem ba dafa xel mi dafa dafa dem ba xel mi dem ci kaso bi Saliou Ndiaye dem na ba xamatul Saliou la tudd xamatul bu ñu ko woowee appel du mën a wuyu ñu koy dóor benn bët bi yàqu sa il paraît que dafa dem ba man pour te dire dafa dem ba mujj gi gisatu Saliou Ndiaye li tax ma bàyyi ko xel bi ma dugg chambre 43 dama ñëw gis ko mu toog isolé wu à chaque fois ñii dañuy toog di waxtaan moom dafay isolé rek après ci la commencé dafay a jege di ñu dem ba gén ginnaaw di xool ay mbokkam nag ñuy wax ñu ne ñoom foogoon nañu dee na bu yàgg dem na bu yàgg ko jugé dañ ko bàyyi relax purement et simplement te loolu bari na rëbës cas yu bari yoo xam ne tey moo fi nekkoon di expliqué émission bi si lay yem donc en réalité damay toog ma ni Sénégal Sénégal dañuy arrêté ay nit si sunu tur ñun dañuy jàpp ay nit emprisonné leen si suñu tur ñun. Mhm. ñun ñooy fay garde yi ñooy fay juge yi ñu juge d'instruction bi mu war a def ay enquête procédure bi nga war a jaar dem ci pro ñooñu ñëpp ñun ñoo leen di fay te dañ leen arrêté pour ñun suñu kaaraange ñun donc ñun am nañ si àq ak yelleef donc loolu nag bi ma duggee si kaso ba gis ko loolu dafa def j'ai tout fait pour Sénégalais yëg ko mais yàlla moom moo xam ban moment lay namm pour ñëpp jot si li muy def nekk moom moo ko xam parce que je crois que su luy amuloon masse kii bii nii c'est-à-dire vague d'arrestation yi politique bi jeunes yi et tout am na yu bari yoo xam ne am na rëbës nit ñi duñ ko xam dañ koy dégg nii wala bokk du am aura bi mu am nii quoi tey ci mm-hmm. communication ci ku nekk di wax xale yi di wax fii ay xale yu ndaw di wax ku ne di wax mais lii yàgg na Sénégal te ba léegi jeexul dañu man dugg naa chambre 36 ki ma fa mujjee bàyyi <coughs> Ernest Mendy Ernest Mendy sept ans lañ ko tëj woowuñ ko juge waxu ko dara hmm. amul benn c'est-à-dire juge ko mu dem ba juge bi bàyyi ko parquet bi téye ko hmm, mooy li ñu doon kaas keroog ci kanamu maître Moussa Sarr ndax pouvoir bi pouvoir am donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ni ñu ngi fees dell ci kaso bi te àq la te àq bi Sénégal il faut ñu xam loolu au fait mm. que bi ñun ñëpp la ñun ñëpp amee nañ àq ñi ñu tooñ tëj leen ci kaso bi parce que dañ lay jàpp bu ñu la jàppee gendarmerie bu la jàppee da lay jël yóbbu la jóbbu la procureur procureur def la mandat de dépôt juge d'instruction bi nekk si enquête ne day enquête di la woo ngay dem di ñëw balaa mu laa woo yàlla xam mu dem ba ñu affecté ko mu jël sa dossier keneen ñëw toog fa jël s dossier ko keneen ñëw encore yeneen dossier yéeg ci ñu fàtte la 10 ans bis bu ñu la waay jure jugé rek 3 ans lañ lay tëj fekk perte nga 7 ans ci kaso bi ba léegi mi ci kaso bi bu baax mu doon jiite si kaso bi et tout moom tamit ay ay kaaw ñàkk fere lañ ko arrêté si ay doon jàppale Pastef yi des fois xam nga jàppale ne woon ci kaw Imam Ndao leen jàpp man ci Imam Ndao laa ko xamee bi ñu arrêté Imam Ndao ñu doon def manifestation da doon si da doon jàpp si loolu quoi la di ñu jàppale si manifestation yi dem di jàppale Imam Lo di ko utal ay avocat yu mel noonu daal lañ ko toppee ba ba léegi Thierno mi kaso bi. moom bénéficié wul ci loi d'amnistie bi. non arrêté wuñ ko si moom il eh, eh, n'a pas été arrêté si kii si si si affaire euh, manifestation manifestation lañ ko arrêté woon. ok d'accord si affaire xaalis la quoi. waaw mais juste pour enrichissement illicite la je pense yu mel noonu. mais en li xam li wér bu wóor ci ci ci euh, juge moom jugé nañ rëbës ndax jeunes yi fa nekk dañuy soxla ku leen assister psychologiquement bu ñu génnee et tout yàgg nañ ko jooy te loolu lu war a am la te lu état Sénégal war a jug la. mais Karim ban ban sa dafa am lu ma jaaxal loolu nga dund noonu. ci ci ci prison bi. nga xam li fa nekk yépp mais ban force la Karim am ba su génnee parce que am na ñu bëri bu doon ñoom bu ñu génnee doo sax nangu génn bala ñu wax dara pour delluwaat maanaam dañuy def le tout ba nga xam ne duñ ko jege. mais ban force la Karim am ba loolu yàqul dara ci combat bi nga xam ne moom ngay mëne. soo génnee ci ngay gën a taxawaat mënewaat combat bi te mu wóor la ne mën ngaa delluwaat dundaat la dundoon ban force nga am lu pour def loolu waaw déjà xam nga ñun bu ñuy xeex lecture bi ñuy def la quoi d'abord si ban peuple la xeexal yan mentalité lañ am ñoom fan lañ toll nan lañ comprendre ñoom Sénégal nan lañ gisee xeex xam Sénégal dafa am dafa moo nekk koo xam dañ ko anesthésier sénégalais day nalaw depuis très très longtemps mhm. sénégalais bi ñu commencé yàggul ñun il nous a fallu beaucoup de temps pour yee sénégalais il nous a fallu xam nga xeex suñu bopp wan leen ni ñun Sénégal moo ñu tax a jóg parce que loolu rek déjà dafa jël temps pour ñoom ñu am kóolute si yow parce que leen yàgg a nax homme politique yi di leen nax mouvement yi di leen nax léegi ñun il fallait ñu leen ñu xam benn beneen bi mooy euh, lan moo lay tax a jóg mooy tawakkaltu ala Allah laa hawla wala quwwata illa billah mhm. cest à boo jógee yow da ngay wakkiirlu si yàlla ñun si yàlla lañu wakkiirlu moo tax ñu indi nitu dëgg wakkiirlu si yàlla mooy lan dañuy xeex dañuy xeex pour libérer Sénégal mhm. libérer Sénégal xam nañ ni ñun ñi ñuy xeexal dañuy nelaw bu ñu lay arrêté seen biir kër ngay commencé am pression say doom mhm. sa yaay mhm. sa famille mais li ngay def nii jaru ko Sénégal yi jaruñu xeexal ñoom kon moom moom jarul xeexal moom muy wax loolu alors man soo waxee dama la man sama yaay jar na xeexal mhm. man samay doom jar na xeexal il faut ñu comprendre kan mooy sénégalais bi parce que ñoom dañu jàpp ni au fait en réalité bu seen affaire tanee rek wala su baaxee suñu amee lu ñu lekk rek rek ça va quoi nañ fexe ba débrouiller am lu ñu lekk li ci des nañ ko bàyyi ci loxoy yàlla te mu bindee doomu aadama la ko jox pouvoir mu gérer li mu yor mhm. xam nga ne ko léegi yow doxalal léegi doxal boobu nag yow ci ngay war a jëlee li la yàlla jox nga jël sa responsabilité nga gérer ko mhm. léegi nag yàlla du defal nit li nga mën yàlla day fekk da def li nga mën mu defal la li nga mënul mhm. léegi li nga mën nag mooy nga xeex nga wax nga taxaw bari nga wakkirlu nga a am mooy yamale mooy def lépp mais li nekk sa kanam da nga ko war a dindi. Mhm. en tant que musulman par exemple yonent bi wax mhm. ko war a dindi ko war a dindi ak loxoom su ko mën dindi ak loxoom mu naqarlu ko si làmmiñam su ko mënul naqarlu si wax ba ñëpp yëg ko mu naqarlu ko si biir xolam. Mhm. léegi mu ne yooyu ñett yooyu bu si amul. mu ne yooyu amul lu toll ni pepp suuf ci ngëm. donc kon xoolal bu fekkee da nga nekk ci dëkk ñu jàpp leen depuis 1960 Sénégal problème s Sénégal Sénégal am na pétrole am na zircon am na uranium am na thorium am na fer am na turbu turbu turbu moom la naar yi di taalee seen chicha yi nii. Mhm. turbu géeju Malika bi yëpp ay turbu la c'est-à-dire Sénégal richesse kese la or oru Sénégal bii nii jëppi Kanka Moussa la Kanka Moussa Kanka Moussa. Mhm. c'est-à-dire kon te gis nga Kanka Moussa. Mhm. Euh, roi la boo xam ne bi muy or ba fu mu romb ñooñu or dafay daanu foofu sax dañoo takk ay ay ay or donc kon oru Sénégal bi Sabodala yàgg nañ ko jël te bari na ju jeex illimité la donc loolu yëpp Sénégal mënu ko am ba pare te Sénégal mënul développé Sénégal am na Cheikh Anta xam-xam la ci politique scientifique la il est extraordinaire kenn warantewul fekkee euh, peut-être intellectuel comme ni ñu koy wax entre guillemets Senghor nekkoon na xam ni administration ñëpp gis nañ li mu def mais am na xam-xam quoi qu'on puisse dire Sénégal am na am na euh, Serigne am na Alaaji Malick am nañ jàngu bi donc ci diine am nañ tànk yu taxaw ci politique temporelle aussi xam nga am nañ tànk yu taxaw spirituel temporel kon lu tax Sénégal mënul dem lu tax Sénégal mënul dem au fait problème problème Sénégal problème mu nit la am problème mu nit nit nag mooy dëggu mooy nit koo xam ni da ngay wakkirlu li ngay def nga def ko te yàlla tax foofu la toll kenn li taareel Sénégal mooy intérêt bi ak mm. yàqamti saxal mbaa saxal mbaa ma sulli Sénégalais dafa yàqamti day xeex saxal léegi mbaa ma sulli moom bu saxalee dara rek danaa koon saxal mbaa ma sulli mm-hmm. loolu nag tax na combat bi ñu baree bari nekkoon nañ si yoon bi mais mm. après dañuy mujj wàcc yoon bi parce que dañuy bëgg coûte coûte affaire bi fay yow yaa ngi xeex da nga war a nekk lii yow il faut nga am lii dafa dañu may wax yow dafa may tànqal yow il faut nga nekk fii da nga war a dem lii il faut nga am lii au fait affaire bi du gâteau bu ñuy partagé il faut mu am ay sénégalais yu xam nga jul diine dafa am fardu kifaay loo xam ne da nga koy def pour ñëpp comme imam bi ni muy mokkale saar yëpp moom kon ñun ñëpp mën nañ bañ a mokkal saar bi diine di def loo xam ne yow da ñeneen ñi mooy diine comme noonu noonu la combat yi di def loo xam ni yow mënoo ko sama système mënu ko bi tey ko ñun mën naa ko def man yàlla dimbali ma mën naa góorgóorlu ba mën naa tëdd prison un an deux ans pour Sénégal mën naa mën naa xeex ñu dóor ma pour Sénégal amul problème anyway mais peut-être am na koo xam ne moom mënu am statut boobu attanul loolu ku nekk la yàlla ko mhm. donc loolu léegi prison yi su ma duggee daf may gën a motiver gën ma yokk doole parce que bu may dugg prison man man sama première arrestation man Y'en a marre laa bokkoon mhm. man dama doon animer rajo mhm. Top FM man j'étais rappeur di rap di animer rajo en même temps émission ma dégg Y'en ma invité Thiat bu kër gi ak Fou Malade bi ma leen invité ñëw si rajo bi ñu def une émission presque une heure trente minutes ils m'ont convaincu ci laa adhéré jour boobu laa adhéré Y'en a ma ne bis bi ki tey bokk naa Y'en a jour boobu laa commencé dem ci activité Y'en a marre yi bu fekkee Y'en a marre mi ngi soog a commencé ma ñëw bokk si di dem di ñëw juin bi ñuy arrêté 22 juin man Fou Malade Thiat Cap de Seuss crise du coup lañ arrêté ci place de l'Indépendance fekk ñu fekk politicien Daniel Brottier ne neen fi ngeen toog nii bu ngeen ko bàyyee bu cent bi te kon Karim Wade mooy nekk président Sénégal ñu jug dox caat dox ñu ñëpp ñu ci ginnaawam ñu dem toog place de place de l'indépendance policiers yi fekk ñu fa chargé ci la ñu arrêté yóbbu ñu fanaan centrale bi ñu fanaanee centrale le juin am nag loolu moo déclenché juin Sénégal yëpp jóg mm-hmm. loolu moo ko déclenché en mm-hmm. léegi bi Sénégal yi jógee Abdoulaye ci la dellu ginnaaw donc pour wax la léegi nag combat noonu xam nga peut-être maa di dem di dem bu ma dem ba peut-être amatuñ bokkutuñ gis maa ngi màgg si activisme maa ngi gis yeneen xeetu combat yoo adopté wu ñoom ni ñuy xeexee je respecte waa Y'en a marre parce que lu ma jàng ci xeex ci ñoom laa ko jàng mais ci après ñun ci lañ bàyyi créé nitu dëgg waaw nitu dëgg nag mooy loolu nag moom day ànd ak lu ñëw si métti da nga koy jëm a dékku sacrifice waaw sacrifice la quoi d'accord chaque jour gën a dugg rek di gën di gën a ñeme <laughs> d'accord euh, Mame Birame damay ñëw mun nañu wax ne li euh, Karim di wax yow tamit mun nga ko wax ndax euh, mun nañu wax ne am na benn similitude boo xamante ne am ngeen ko euh, tey jii par rapport ak euh, lien de les lieux de détention yi nga xam